fi ma lay fi ma lay interpellé euh, tey ngeen am amal assemblée générale au sorti de cette au sorti de cette assemblée lan ngeen di xaar li ñuy xaar mhm. mooy que notre directeur général Pape Alé pratique yi mu indi nii jaay doole bi mu indi nii mhm. mu mu bàyyi ko te dellu ca concertation bi muy doog a ñëw lam ñu waxoon mhm. parce que aujourd'hui moom en venant il li mu ñu waxoon mooy cest day liggéey ak ñëpp liggéey ak ñëpp. du ci wàññi dara lii duma ci wàññi dara. Mm-hmm. moo ko wax agent yëpp toog déglu ko. Mm-hmm. te loolu bande yi ñu ngi fi mu ne accord bi duma ci laal dara. Mm-hmm. loolu lu ma wax la ñëpp dégg ko. mais ce qui a changé dafa jot ay instructions. non moom il le dit il dit que lii mais man moo tax ma ni la loolu expédition punitive la. parce que ñun du ñun amuñu kattanu. joxe micro ak bañ joxe micro. loolu foog nga xam ko. foog nga xam ko man mi man mi nii ban laa ci man je suis petit technicien nan lay ñëwee aw ma kattan gi ñun on est des travailleurs c'est-à-dire que il faut que gars yi pas gars yi di euh, assimiler monde du travail ak le champ politique. Mhm. loolu bu ko defee rek gis nga le tissu day metti non mon cher mon cher. annuler une signature qui n'est pas valable il a rien de.

di avu di def euh, ak certitude. ci loo xam ni non non. c' est fait tu as la pensée de un faussaire. tu as la pensée d' un faussaire donc évite ça. Ah, alors évite ah, ça xam nga mais mais légal c' moom moo ko signé mais. est-ce que ban moment la ko signé est-ce que c'est élégant le moment importe quoi xam nga moo am l'intention de les aider dafa doon def non non non alors alors on s'écoute un peu s'il vous plaît on s'écoute hein pour ñu dégloonte tamit temps parce que y a des gens qui nous regardent actuellement on s'écoute non parce que am na acte légal mhm. et l'aboutissement d'une lutte kii xeex yoru ko ki ngay xeexal moo ko yor parce que kooku li mu doon def dafa am loo xam ne ci loolu la doon xaar pour mën koo def il fallait ñu te code de la presse il fallait ñu promulguer ko il fa fallait décret de financement de l'audiovisuel public génn te loolu lépp daje woon na. d'accord alors kon quand il me parle je me dis que ça c'est parce que tu es ah. endormi. mais ñëw ci Mouhamed RTS boo man moom yi gis nga RTS daanaka politique bi moom moo ko xaw a jaxase ba fi ne nii. Eh, ah, ah, am lii la gars yi réussir mooy c'est-à-dire que. ñoom ñoo ko bëgg a réussir déedéet non non non moom laa leen nettoyage la rek politiciens yi ñoo ko ñoo koy ñooy pervertir la lutte syndicale parce que avec les moyens de diffusion très voraces yu ñu am. Mm. et et certains euh, ñi nga caractères yoo xam ne tamit dormant. <laughs> parce que xam nga dafa am benn affaire bu am solo bu Pape Alé def te tamit nañ ko wax. oui xam nga comme ni kii di def. daf ko am ci ay site ak ay télé non maa ngi non seen kon xaw ma mm. daf ko am ci ay site ay télé ñoo xam ne sax dañoo war a ñëw ci ñun mm. mais dañ leen a bàyyeen di anétana coow li di kii mais c'est pour valider la forfaiture de Pape Alé si suñu kaw ce nazisme là qu'il est en train de faire c'est pas normal. ah non c'est pas trop dire parce que imagine quand tu viens. tu non mais quand tu assassines un lot d'acquisition fruit d'une lutte de beaucoup de générations loo xam ne trois trois régimes kii na mandat wu régime jaar na fi. nga ñëw nga dégaper lépp. mais comparer ça euh, arrêter. d'accord on reviendra sur ça on reviendra sur ça. non mais le nazisme c'est quoi. benn fee la rek il faut exterminer ces gens là te détermination détermination bi soo leen ko avec vos collègues yu doon souffrir on allait régler le problème il faut me dire de quoi nos collègues souffraient mais il faut pas faire des choses yoo xam la journaliste Okay. La, gestion, de la RTS était calamiteuse. Ça, c'est un secret de euh, polichinelle. Euh, je suis désolé. S'il vous plaît, Kadior, c'est à vous de m'aider pour équilibrer le débat quand même. On a deux invités. Hein. Je, je, je, vous invite à m'aider parce que plateau, je ne sais pas Aidez-moi à équilibrer, à équilibrer le débat. C'est un débat.